jërëjëf mbokku téléspectateur yi seetaan Bakel 24 ah, seen émission culture ah, tey la ñu dellusiwaat ak yéen ci seen numéro eh, bi ñu baaxoo di ànd ak yéen xam ngeen ni tey eh, ñoo ngi fii ci ah, Louga loo Kër Mbërgu Beleñaan Bakel 24 seen télévision sama télévision nee naa le restaurant yaa soxna ki nga xam ni maanaam Louga moo fi teg tànk nee naa la bu fekkee lépp loo xam ne jëm na ci xeetu xéewlu restaurant yaa soxna amu ci morom disponible na fii ci li nga xam moo di Louga waaye tam fii nga xam ne moo di route nationale Olivier bi nee naa la ndaanaan dëgg boo ko bëggee xool ñëwal ma fi nga xam ni moom moo di restaurant yaa soxna personnel bu xarañ ñoo fi nekk nee naa la équipe bu dynamique ñoo fi nekk loolu nag lañ fas yéene ànd ak yéen ci seen émission culture mu leen di may seen émission culture tey nag ñu fas yéene ñëw présenté leen ay ndaanaan présenté leen ay garmi yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci diwaanu Louga li ko wër xoolal ma ki nga xam ni moo moo di Baye Samba borom groupe bi borom aar bi loolu lañ fas yéene ànd ak yéen tey yoon wa sori we maanaam nan fa ji ma dem yóbbu kese ngese gi buy bu yoon wa sori we maanaam nan fa jéem a dem yóbbu kese kese gi de jafandu naa naa faka saalu waalu faka saalu waalu Kesenge, Já falou.

darja, or join a fit, a girl in a fit. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar ah eh, waaw man la Baye Samba Dieng Baba Ndiémé Biradam dëkk Louga loo juddoo Louga yaroo Louga dëkk HLM Coxna yaroo HLM Coxna màggee HLM Coxna. instant bi euh, ñu ngi ci biir coupe du monde fi mu toll nii ñëpp nga Qatar ku demul Qatar sa xel mi ngi Qatar ah waaw. <laughs> à peine il y a 6 ou 7 années, Marie commençait à faire la de musique. Mais je ne voulais pas trop parce que la musique, je la musique. Mais autant, nous sommes On passait à autre chose. On faisait autre chose. En bref, mais il y a la def au fur et à mesure, affaire bi nekk de la musique. Yalla def xam nga ba nek ay musiciens parce que damay bañ comme y' a pas beaucoup de temps. wa acoustique acoustique ak Louga parce que bon ça dépend c' le milieu qui détermine la personne man dama juddoo ci HLM ci Coxna fekk fa benn groupe bu ñuy wax gëstu HLM à l'époque bobu yag yàgg na koñ boog loolu la gars yi di wax ko ñu tuba yi quoi <laughs> mais bon en fait à l'époque époque gars yi dañ nekkoon xam nga. Euh, l'ASC gëstu nekk fa ñu am suñu ay mag yoo xam vraiment macha allah donc mosuñu ci yàq dara. y avait aussi le groupe Bactous bu doon def acoustique ah donc ñoom aussi inspiré nous bi nekkee xale ah. ah aussi à l'époque suñu benn grand bu ñuy Ponge à chaque fois on dirait maa ngi koy ah de passage. ndeysaan moom daraan teg ay jogal saaxo ah.

affaire yi commencé daal di dugg ci sa biir yaram comprendre ku ne xam ne musique boobu mi ngi dikkee ci nit doo sax comprendre quoi da xëy suba xam nga yàlla def affaire yi di ñëw mais en travaillant aussi comme li may am na loo xam ni don la yàlla daf la koy may mais am na ci loo xam ni deret la day nelaw des fois boo ko yeewee rek day yeew te bis bu la ci yàlla ma nekkee ba nga nekk ci mbir boo demee ba ci biir da nga comprendre de comprendre que l'affaire affaire yi deret la don dafa am C'est deret dafa tellement important. Wa musique musique bon j'ai passé à l'école des arts yàlla def nañu aussi génn naa fa ak sama diplôme donc euh, maa ngi fekk sama benn diplôme mais avant tout musique de la jàngee j'ai appris quoi ci suis mi la jàngee mais avant tout ci biir kër la laa C'est sama cœur papa. Parce que moi, je suis né dans une famille griotte, je suis papa euh, fut le directeur du cercle de la jeunesse. Ma maman fut aussi chanteuse dans le hein, ah, du cercle de la jeunesse. Donc, ils ont fait le tour du monde. Donc, bon, Donc, il y a la il du dos. Mais Mais on pensait à faire autre chose parce que nous avons a boo fa juddoo da ngay fekk ñëpp di jàng on on avait que on avait que des intellectuels comprendre nga jàng lañ xam am baccalauréat dem génn seen yoon xam nga dem ñii dem voyager ñii dem colonie seen xam nga seen ay processus ça dépend mais aussi autant que ma judd ci famille bi yëpp ba pare nekk ci milieu boobu donc en même temps dañu doon jàng école mais en même temps on vivait là, parce que yàlla def nañu aussi famille bi dafa yaatu xam ñëpp dañu ñëpp dund à on peut dire mais ku ci nekk aussi yaa ngi am ci benn domaine booy jàpp mais au au fond de toi aar ngi ci sa biir direct bu yow yaay xool heure bu la neex nga yeew mu yeewul macha allah. ma famille donc masar Massar masar masu Massar Sarr bon bi de je me rappelle bi mu daal jouer centre culturel je ne pouvais pas chanter je ne pouvais pas jouer carrément la guitare dama ko daan seetaan muy jouer.

en faisant des recherches aussi par bi yàlla defee aussi ñu sommes ci milieu bi carrément donc de jouer de petits spectacles mais en même temps on faisait des recherches ici à Louga dem ci kër Cheikh Baye Fall xam nga di répéter X time xam nga arranger ay morceaux xam comprendre il y a variété variétés, surtout variété moi je faisais beaucoup de variétés. je reprenais pratiquement toutes les chansons que ça soit reggae que ça soit acoustique même dans le style mbalax des fois je le fais parce que xam nga lépp musique la quoi mais d'une façon très très très professionnelle xam nga tamit en respectant la musique parce que musique dafa une loo xam ne euh, yëfi noble la quoi pour moi respecter dañu respecter les instruments comprendre nga lépp lu ñuy def dañ ko war a jaarale ci yoon comprendre nga parce que le musicien c'est c'est c'est un noble c'est un noble c'est tellement important waaw xanaa ma def fulla ya? ak fayda rek ma fas yéene ñaanal la nga tàmbalee fa nga bëgg a yeeg jàmbaar yi dëgg la gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar yi te moo di buur alme fu la fekk da gaañ loolu la ñu wax Flag fighter, some flag fighter. Can you do it? Yeah, Flag fighter, some flag fighter. Can you do it? Yeah, Flag fighter, some flag fighter. Can you do it? yeah. nga tàmbalee fa nga bëgg yéen jàmbaar yi dëgg la gaynde waru tiit moom du ragal jàmbaar te moo di buuru àdduna kum la fekk dalay gaañ loolu la ñu wax fulla fayda soo amee fulla ak fayda kenn du ñeem fayda sama fulla fayda kenn du yéen yéen gaynde yi muy way xam caaxaan lu ne dina ko def ba nga la wayal asiko ba nga reetaan may fàttaliku ba ngay dooree nawetaan defal li ma gis ni yaa ngi fee yaa ngi fee Sadio Mané mi may way xamul caaxaan lu ne dina ko jéem ba nga kontaan na la welasi ko ba nga retaan mooy fàttaliku ba ngay dooree nawetaan defal li nga mën ma ni yaa ngi fee yaa ngi fee fulak fayda soo amee fulak fayda da nga ñëw ñu 예야 예아 잠깐만 예야 예 맨날 이 리그 무서워 예야 예

dem Demba Dam Ali Anta Diop daw ko ma daw mbay sagara bugul jaam lebar numbe falale antanara kodu jama ku ci ma macha allah macha allah <laughs> ku ci ma sa màgg yónni jaam macha allah yàlla dafa def nii tamit waaw fi mbaa yëpp ay noble lañu barki sëñ Bamba moo tax Dieng Baba bi dinañ ci ñëw waaw Dieng Baba bi faaw ñu ñëw léegi

pa pas comprendre nga mais du question da ngay manier guitare mais li ngay def da nga koy respecté surtout en faisant beaucoup de variétés en cherchant xam nga dem ci dem ci wóolu musique bi dugg fu nekk xam nga ñëw ci musique Sénégal bi xam nga dugg ba ci biir ba ci côté taaxuraan bi yëpp même sa boo ko mënee gëstu ñu gëstu parce que ñu Sénégal culture bi ñu am amul fenn ci àdduna amul fenn xam nga surtout ma diwaan Louga bi nga nekk xam nga ñu judd ci benn cycle boo xamante ni si pratiquement ñëpp aar la def ba partout dans le monde donc te ñu ngi koy def defin bu rafet macha allah xam nga yàlla ku ci nekk yàlla dina ci sutura donc après sax dinaa ci ñëw parce que y en a beaucoup y a des exemples yoo xam ne ñu ngi sigil Sénégal ci ci ci ci ci aar bi ci aar bi vraiment te mosuñu ko yàq. instant bi nag maa ngi suñu premier single. moom mooy li ma la waxoon sax ci la patience parce que man nekkatuma man kese lépp lu may def damay damay.

bokk yàlla may ñu aussi ñu ñu nekk ci ay waar ba liggéey al ba liggéey single bi on peut dire album mais incha allah y' a beaucoup yi nga xam ni mi ngi ñoo ñoo ngi nekk en waaw. Mhm. njukkal. waaw parce que je rends hommage à papa sama papa moom lay rendre hommage ci instant yi nga xam ne mi ngi ci àddina parce que dafa am loo xamante ni dafa am importance. ki nga xam ne daf la gindee teg la ci yoon siraatal mustaqim jàngal la alxuraan chaque jour muy wax ak yow pour orienter la ci sa ci sa life parce que àddina bi yëpp y a beaucoup de tentation ngay dem fi di dem fii di jàng xam nga di di am di ànd ak ay doomu aadama yu nekk ci àddina lu nekk waroon la cee mën a fekk saa su nekk suñu borom dina suturaal parce que lu bon bon léeg-léeg yaa ngi dem ak sa xel sa xel moom a ngay demee du question dara mooy ki doon wax ak te kii wax a yow kan la sa papa ay yan moment la moment yi ngay toog di añ moment bi ñu toogee ci boolu añ bi di añ mu wax ak ñun njëkk saa jàllale ay message comprendre nga bëri na moment de julli bu ñu jullee ba pare rek mu tourné waxtaan ak ñun à chaque fois il nous de question questions pour essayer di xam na moo nekk ci suñu bopp yi xam nga suñu yaay yi aussi sonn ci ñun xam nga. comme yeneen yaay sonné ci ci seen i waajur yi parce que waajur yëpp ñu sonn ci seen i doom comprendre nga mais jusque damay damay damay fukk ci sama li nga xam ne dund naa ko ak sama ak sama waajur dund nañ ko aussi ak sunu ay waajur mu teg ñu ci mbaax macha allah yar ñu ci diine surtout diine bi man moo ci am importance parce que bu boo amee diine di nga am cër ci doomu aadama yëpp man loolu lu ma gëm la quoi. diine nag dafa nekk loo xamante ni si du lu koy wane ay maa ngi non dafay nekk ci sa biir xol gëm-gëm dafa am importance foo mën a dox nag ci àdduna ngay mën a doxaale ak say waajur nit nag da ngay nekk jeune ngay dugg fu nekk tentation yu bëri mais la suñu borom bu ñëwee rek xam ne ñaani waajur la moo tax il faut ñu di leen delloo njukkal parce que àdduna bi dafa tëradi te chaque jour nga gis ay miracle donc boo yeewoo ba jant soog te dara jotu la sant yàlla suñu borom sant Seydina Mohamed ba pare sant waajur yi sallallahu alayhi wa sallam sant waajur yi c'est tellement important njukkal ñu dugal ko waaw waaw maa koy may nag may ko parents yi ma ne ma may ko samay parents waaw maa koy may képp képp waajur yëpp laa ko may to do. That you have to do. That you have to do. Daukumba daumba, daukumba daumba, sana jame. Never. Never. Never. yeah, No, no, no, no, no, no, yeah. jamalengano jimalengano yanu jinde janganganu dine dugal ganyu alquran buñu doonay laan yeneen bi sa na ma bëgg nañu la baay jing baba yanu jinde baay yanu gënoo sân na nhu la yo samba jing baba hey hey hey hey hey no no no no no no no jing baba hey yeah yeah yeah yeah yeah no no no no no no no jing baba Sababa yo nama yeduma mama, mama. sama baay woo na ma yeddu ma maama sama baay woo na ma yeddu ma maama sama baay woo na sama baay woo na ma yeddu maama góorgóoroo ci àdduna mooy góorgu ji maama góorgóoroo ci àdduna mooy góorgu sàmm jigéen góorgóoroo ci àdduna mooy góorgu tere góorgóorloo ci àdduna mooy góor gi tere jigéen lebaroo maamaama maamaama sama baay wala maamaama maamaama maamaama Bye, Bonama. You do my mama. You do my mama. You do my mama. Nice talk. Thank Bob, yeah? Bagis gak? Amang ke mai nyep ah. Amang ke mai nyep. Vraiment. Morceau wa single bi nak dafa am ñu ci japp bëri na aussi je remercie dama nuyu man sama manager Baba Dieng ah je aussi ma famille sama famille sama famille ma chose spéciale ma ma ma famille bëgguma sax lim quoi xam nga bëgguma lim di nuyu jigéen ñëpp hein ah, di nuyu suñu soxna yëpp vraiment mais plus particulièrement sama jabara ah. donc dafa am lu bari lo xamanteni ni si daf ko daf ko def si daf ko japp ci ci liggéey bi yalla xam ko rek tax may wax donc ma koy nuyu. dafa ndax xam nga rek. xam nga jàpp xam nga jàpp. ak yaay junior waaw yaay yaay junior. yaay junior sama xarit la. boo nee da koy wax. dara waaw mais mais xam nga c'est que ju baax la am. ndeysaan jabar ju baax. jabar ju waaw mais macha allah kooku mooy borom bàyyi tendance culture ah. waaw di def bàyyi borom bàyyi tendance culture ah di def. style yëpp ah ngi fépp waaw boo demee TikTok defal fës mu bàyyi ah tu tu da ngay gis bàyyi tendance couture da gis sax sunu ay bagages yeneen yoo xam ne def nañ ko ci biir ah donc voilà Baba liggéey bi dafa yaatu donc donc on ngi ko jobee ak euh, Samba Lobi mbay Mbaye kër mi moo tax ma xam ko yàlla def mu nekk nit ku baax nekk d'origine malien aussi

loo xam ne da ngay bëgg àdduna yi déglu ko da nga koy def trois minutes pour def petite présentation mais vraiment morceau bi Massar am na ci wàll du Dieng am ci wàll Baba am na ci le 24 décembre au centre culturel <laughs> c'est c'est vrai que c'est vrai que parce que voilà Dieng Baba pour moi n'est dafa yaatu am na style bëri am forme forme forme yu bëri yoo nañ ko ci d'ailleurs yow yaa ma njëkk enregistré parce que boobu maa ngi doon joué benn style coroboro boo xam ne aussi c'est c'est universel comprendre nga mais bii dafa gën a fënk quoi dafa gën a dafa gën a mais bu ma la yóbbu woon fee sax nga ni est-ce que bii dàqul xam <laughs> donc c'est ça quoi waaw donc le 16 décembre incha allah donc Dieg Baba famille ah donc ñu ngi Saint-Louis euh, école Samba Jéema concert, un grand concert pour les, les, élèves de saint médié ah. les professeurs ya sont xam staff donc Inch'Allah, le le 24 décembre donc concert djeng Baba aussi donc euh, au centre culturel Madame. le 24 décembre non le Serge Serge bu ko parce que mais pas au centre culturel ci moom moi filmé la directrice ma koy davantage, davantage aussi Mass Mademba ah, donc avec équipe de centre culturel vraiment. donc le 24 décembre ça se passe au centre culturel régional de Louga à partir de 22h 23h. il y aura beaucoup de surprises Inch'Allah. Vous le 24 décembre inchallah Serge yaa ci biir yaa ngi Hakim ah? voilà donc première ñëpp <laughs> voilà donc première partie bi y a ci mais artistes y aura beaucoup d'artistes invités aussi donc y aura du surprise surtout ah, donc je les appelle Je les les mélomanes Je suis rek bëgg Je xam na ko man te Louga moom mooy capitale culturelle Louga dafa war a yaatu aar bi dafa war a yaatu ñëpp ci xaj duñ bu sañoon dañu am ay festival yoo xam ni ñëpp ci gis seen bopp booy jaay booy dawal Jakarta dañuy liggéey 24 heures sur 24 taximaan yi comprendre nga resto yi ku ci mel na yaa soxna xam nga di recevoir ay ay clients di recevoir ay gan parce que liggéey bu nice la waa di def parce que fii maa ko inauguré Dieng Babou moo ko inauguré comprendre moom may émission émission bi ah voilà donc ma ko nuyu ak Maha Maxa ma koy di aussi Baye équipe bi fi nekk yëpp gars vraiment ce sont des gars trop trop bien vraiment je les voilà je les kiffe quoi je les félicite aussi Maha, initiative bi mu def parce que gars aussi il fi fait manquer quoi donc il faut que ñëpp soutenir ko am na tamit ak yeneen ak yeneen gars yëpp xam nga parce que musique rek meuna doxal instant parce que je bi remarqué Covid j'étais à Dakar mais bi Covid bi bi concert reprendre al taxi yi ma wax pourquoi parce que comme ça ñun sax ñu di parce que à chaque fois y a concert xam donc ñi bouger ñun dañ ci gis ki jaay café kii jaay gerte caaf gis ci boppam ah kii jaay was gis ci boppam ah donc ñëpp ci gis seen bopp ñëpp ci gis seen bopp vraiment kii jaay lekk gis ci boppam donc festival ak yu mel noonu dafa baax ci dëkk moo tax may ñaan festival beeg ak lépp luy festival fii à Louga gars di ko valoriser di ko mettre en valeur donc ñun ñun ñu fi nekk dëkk Louga di dem ci yeneen dëkk yoo xam ne dañuy respecté ku ci mel ne duwaa ni tubaab jëlaaw tey bu ñu fa demoon yàlla xam na ni nit ñi fu ci ku ci nekk daf ñu xëccoo kaay dal fii kaay dal hôtel bi kaay dal hôtel bi man ak baaba parce que dañ fa dem présenté fa loo xamante ni si vraiment ñoom tellement duñ kontaan duñ bëgg ñu dem bu sañoon Louga dañ ko fi def saa su nekk waxuñu ay benn yoon ay ñaar yoon mais saa su nekk dañ ko fi def parce que loolu la ñuy def saint loolu la ñuy def Saly moom la ñuy def Mbour moom la def feneen ak feneen donc lolo lañ bëgg inshallah rabi di def chaque mois même bu fekkente ni mën nañ ko partager les mélomanes mais le 24 décembre d'abord je lance appel billahi tous les artistes sont invités au centre culturel entre 2000 francs via VIP 5000 francs da ngeen groupe Dieng Baba Vous ah ku bëgg def réservation da ngay def 77 522 78 02 77 522 7802 77 164 58 64 164 58 64 77 164 64 réservation pour le 24 décembre Inch'Allah. donc les tickets Inch'Allah, bientôt comme ça Louga culturel la fête le 24 décembre dimanche d'un férié pour relax savouré c'est tellement important quoi. Ni du stress. Il ah, y aura des surprises. Il y aura beaucoup de surprises, Inch'Allah, comme c'est une première. Un jeune Djambour Djambour, un jeune Logatoa, vous tend la main, je vous tends la main quand même. Le Djeng Babou Family. Hein? Version acoustique. Version acoustique, version Mon nom de style, donc voilà. Variété, style, variété, donc vous verrez, vous verrez beaucoup de surprises, Inch'Allah. Manglé Ziar. Ouais, Yassona, Bilal, il est donc voilà may nuyu sama famille di nuyu sama manager di nuyu sama djaba, di nuyu soxna yi di nuyu ñep, di nuyu sama xarit ba Mbaye Babacar ki faa mëna mën parce que Boy Giri moy bayam. Boy Giri mo nekkoon le batteur de Youssou à l'époque mu tuddee ko Mbaye djé fay, Mbaye djé fay mo tok ni. Amna yo xamni du hasard barki sëñ Bamba <laughs> yàlla def mu doon turandoom doon international wër àdduna bi yëpp barke xaadimu rasul ku ko xamul man xam naa ko ci talaa kenn dàqu ko tëgg macha allah kenn dàqu ko tëgg li muy def musicalement bu la teelee guitare nga ni mais bu la jëlee batterie nga ni mais macha allah je touche du bois non calebasse moom dafa spécial. ni instant bi ñu ngi ñu ngi xam comme comme émission la.

xam nga famille bi yaatu na ñu ngi nuyu nag waa Dieng Dieng Baba Ndiéli. Dieng Baba yëpp wallaahi tàmbali ci ci sunu maam sunu bàjjen sunu papa yi. bàyyinu kenn sunu mag ñi sunu rakk yi. ñëpp góor ak jigéen di gërëm sunu yaay yi bu baax 24 24 nag ñu ngi ciy woo ñëpp nag barki sëñ Bamba bu boobaa danañ mën da dañuy bale ba mu yàgg. ñu fa xam après après. ñu gindaal après mu mbattaas. ak nu baara mbay mais mais mais mais Baye Samba dafa am jom. waaw mais moom dafa nekk xale nekk sama xarit. ndeysaan par part loolu parce que ñun suñu famille ñun ñëpp a bëggante mu nekk sama xarit. ndeysaan bëgg ma lool fu mu fu mu dem yóbbu ma. moom sama fu ma ne di ko xalaat. ba ba ba dama koy namm. donc donc lii nii bu demee ba di liggéey nii ak ak yéen seen euh, jàpp jàpp ji ngeen ciy jàpp nii parce que seen

ñu ñëw ñu ñëw nu nu nu defaat ni nu ko defee nii mais day day am ampleur. non bu boobaa y' a y' aura tout y' aura piano y' aura guitare y' aura basse y' aura batterie. day fekk day sax mu jël ko. ci kattanu yàlla yàlla def ñu jël ko. Eh, ci kattanu yàlla jëlee ko Qatar indi ko Sénégal. 24 décembre il y koy des coupe du monde Qatar. voilà na ñëpp des def des couleurs couleurs sénégalais. incha allah yàlla na ko eh, yàlla bëggal nu bëggalante rek. donc. couleurs. leen mosal. couleurs. des couleurs. Bismillahirrahmanirrahim. ñuy tàmbali Alhamdulillah. rabbil lalamin, bisa tadi Tolong. Ser. boo ñaanee nang kinaba, Lalu dina baax Senegal dina baax Sénégal dina baax ndax yéen a am jom yéen a am jom yéen wow wow. sant sunu yaay eh, di sant sunu baay ñaanu eh, nday am na jariñ waaw waaw jëriñu nday di juróom ci doom doom bi yegg na bàyyi affaire bi day jël affaire bi day jël waaw waaw ndeysaan daa fu baax rek itam ñoo leen